Gambia wake up Gambia. yow Bamba Mass bu dee yow nga time yi Yaya Jammeh dangaa xeex xam ne mooy corruption yow ci sa boppa waruloo ñëw di askan. corruption biñ xeex xaw ana anti tukulóor si corruption biñ xeex corruption boobu benn tey mu am. xam nga jàppoon nañ fi time Yaya Jammeh affaire cigarette bi nañ dem nag ñu ceeb Bamba Mass ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñiy def di same thing di jël euh, embassy bi di leen rental néeg ba pare ñoom ñu jël néeg yooyu di ko sobletaat di ko fay di ko fayeeku di ko dugal ci seen own poche they are all criminals With all the allegations of corruption swirling around Bamba Mass, You would think the man would curtail his presence on social media. You are wrong. The man seemed to be very busy on Facebook, and I'm guessing on other platforms as well. Looking through his Facebook, you can see he made several postings yesterday. This was the same time, ironically, when the sister of the landlady has accused him of corrupt dealings. Ironically, none of his friends who are interested in following Bambamas and making comments under his posting, none of them seem to be interested in raising the question, Bambamas, hey, there is an accusation level against you What is this all about? Property bi Bamba Mass rent ci suma rakka la ko rentee ramu lobi mu rent kër gi ci suma rakka jël kër gi dem soblet ko moom ci boppam dem defaat moom an order defaraat moom yeneen documents am wane ne moom mooy rent kër gi because this is a deal ñoom within themselves this is a deal within embassy bi themselves ñoom it neen ñooy def deal yi ramu noppi jël këram gi jox ko Bamba luwee ko Bamba Mass binda contrat am ak yépp jox ko Bamba Mass Bamba Mass demaat moo Yaama Fataajo ñu defal seen own contrat yóbbul ko embassy bi Bamba Mass jël kër gi demaat dem soblet ko benn Tanzanian lady dëkkal fa Yaama Fataajo If there is any doubt that the UDP is less concerned about ending graft and corruption in the Gambia, well, you need not look any further. The scam currently going on at the Gambian embassy in the UK is here to confirm to all UDP, their surrogates, their party platform, and their party supporters have no interest in fighting or ending corruption. They are the main agents of corruption and all corrupt practices based on the scam that is currently taking place at the UDP embassy in the UK. suma sister xamut ne contrat bi mu sign ak Bambamas Bambamas demaat na defar an other contract contract boobu la Bambamas yóbbu ci im ca ca embassy bi joxe ko fa wane ne dis yaama yaama Fatajo moom moom kër gi ñoom ñi nekk ci embassy bi they always doing this lii la ñoo def lii la ñoo dundee. suma raka kër gi biñ ko waree fay ba léegi fay nañ Bamba Mass twenty thousand pounds pour néeg bi and my sister didn't see even half of that where did Bamba Mass what did Bamba Mass do with that money yow ñu ngaa embassy ba ngaa fay ba pare yow yaa ngee sopp letaat néeg yi di ci make sa own money eight hundred and fifty dollars benn benn néeg bi mu ngi ko doon rentee five hundred beneen néeg bi mu ngi ko doon hundred and fifty fifty pounds excuse me I'm using the dollars pounds. yo how corrupt are you. Madam Lopi is right. Bamba Mass used to on the forefront in the fight against Yaya Jame. But that was then. Today, he's no more interested in fighting corruption. He is here to sustain and entrench corruption unless we, the Gambian people, stand up to fight. This corruption will never end.